yaakaar naa bu état bi demee ba nii dañuy toog trois semaines duñu jàng donc ñoom aussi prévoir nañ beneen temps su beneen temps supplémentaire boo xamante ne nii dinañ ko yokkaat ci euh, ci ci ci année bi. donc je pense que concernant les examens c'est à l'élève ou à l'étudiant d'apprendre ses cours comme il faut d'être à jour ba nga xamante ni moom lu lu ñëw du ko bett donc yaakaar naa kuy jàng warul xaar ne début bi lañ ma war a jox wala fin bi lañ ma war a jox. war nga mën a nekk au top nekk à jour ba yow fu ñu la laal rek nga génn xam ni yow waaw yaa ngi ci. yii mesure mesure état bi la ñoom ñoo jël seen décision donc xale yi il faut il faut ñu ànd ak kii idée président bi mooy sécuriser wu toog seen biir kër yi léegi nag c'est vrai dina am ay conséquences néfastes maanaam ñoo xam te ne assidu ñu woon. tàmm benn rythme bi tamit pour pour mën a jàngee noonu quoi léegi ñu si wul woon mun nañ fàtte ñenn yi nag mën nañ am chance am ay renforcement seen biir kër wala ay renforcement collectif su yu ñu def si quartier yi tout en évitant les regroupement moo tax xale yi daal affaire semi mitigé mun na baax mun na négatif loolu laa gis quoi. no te mu téye xale yi sax c'est normal ndax feebar bi moom kenn xamul ban ban suuf lay ñëw ban heure lay ñëw waaw su ñu téye c'est normal mais du paralysé seen jàng dara ndax am na ku leen defal ay cours waaw. man maa jël sama matuwaay boobu da ku leen di jàngal quoi. parents yi ñoo war a ñëw nag léegi ñoom à à place des professeurs jël charge en charge élèves yi ñu si mën a dimbali seen doom ñu réviser yenn cours yi ñu dimbali leen ñu si mënul dimbali seen doom ñu def yenn cours yi ñu wutal leen ay professeurs. parce que moom c'est sûr que moom boo boo toogee yenn temps yi jàngoo moom loolu brillant brillant di nga am ay affaire yoo mu nekk si kër kër la nekk moo tax quoi loolu mooy problème mu décision bi nii ñu jël. mënu ko pénaliser ndax euh, wér yaram jaar na lu ne su jëree sax ma mën a toog bay jàng sax wér-gu-yaram jaar na ko waaw ndax amul wér-gu-yaram du am li mu bëgg du ko am waaw ndax ñun ñëpp wér-gu-yaram la ni ñaan. kon ginnaaw président wax noonu rek dañ ci ànd ak moom waaw. moi qui te man je suis étudiant je suis étudiant à l'institut de management mais bu ñu xoolee euh, ñun suñu jàng mooy gën a yomb parce que ñun du ñu xaar prof parce que système bi noonu lay doxee du ñu xaar prof bi comprendre nga donc ñun suñu capacité d'adaptation du bokk ak bu xale yi. par contre bu xale yi yaakaar naa parent yi nga xamante ni ñoom jël nañ ay disposition ba di ut ñoo xamante ni ñoo leen di suivre seen doom en attendant ñuy reprendre cours yi je pense que c'est une bonne chose mais d'autre part ñi nga xamante ni dañu jël seen doom yóbbu leen vacances et tout yaakaar naa bu fekkee xale yi xam nga xale ak mag duñu benn xale li muy li muy jàpp il faut que mu koy répéter chaque jour donc benn temps boobu noonu ñuy toog dina leen xaw a am lu mu leen empêcher tuuti ci seen capacité de réflexion et tout mais par contre il euh, li gën daal mooy ku ci mën a am ñu lay suivre sa doom sa kër yaakaar naa dina doon li nga xamante ni dina arranger xale bi trop nga xamante ni bu ñu dellu si waatee école dañuy ñëw rek nekkaat ci quoi lépp yomb. ndax xale moom matul quoi xale moom olof Ndiaye yàpp bar ma lu mu duuduuri tax. mais tamit il faut ñu tamit jël suñu responsable di leen jàngal ndax njàng mi tamit baax na si waaw ndax mooy réew boo jàng amoo ci amoo dara dama yàlla baal dama mën a avancer fa nga mën nga bëgg a dem. élèves classe d'examen yi ñoom nag moom loo leen war a conseillé mooy ñu bañ ñu bañ a bàyyi bàyyandiku quoi ñu concentré wu carrément si seen jàng bu seen jàng réviser seen biir kër parce que amul amul amul ragal daal il faut nga. nga jàng sa biir kër pour mën a assurer sa examen parce que noo toog trois semaine ni même boo en temps de PAC sax classe d'examen yi dañ leen di bàyyi ñu jàng si yenn école yi di réduire seen temps de vacances pour ñu mën a concentré wu si si jàng bi le plus de temps possible loolu mooy problème bi. bu ñu mën a jàngal ñu mu jàngal leen bu mënee wut prof ñu wutal leen prof ndax ñëpp bokkuñu yem quoi olof Ndiaye ne loxo yi kenn ku ne sa loxo joru sa ginnaaw mais sant yàlla la. waaw xañ na lii nag yàlla moo ko dogal mu demee nii yal na ko fi yàlla jëlee ak jàmm te jox andi leneen lu gën lii. je prends l' exemple des étudiants qui sont à la à la à la à ñoom dañuy profité ci ci ci temps bii nii jël ko comme temps de vacances dem aussi mën a rencontrer seen famille et tout donc yaakaar naa c' est un débat aléatoire boo xamante ni am na ay côté yu euh, positif am ay côté yu négatif donc le mieux daal ku ci nekk. pour xale yi concernant xale yi ku ci nekk que ce soit ñu nekk fii Dakar wala ñu nekk ci région yi ñu ut ku leen di suivre nga xamante ni bu ñu ñëwee ñëwaatee dañuy adapté wu ci cours yi facilement.